الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa sadaqallahu alazim eh, gannaaw bu ñu sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa xale boobu ngeen dégg mu nekkoon ci téere bi yàlla bu sell boobu di alxuraanul karim <coughs> yal na yàlla def ko muy mag ñu nekk fii ni ki tey nag eh, dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de mars 2024 fii ci internat Serigne Dia Balla bu ngeen déggee téere bi yàlla bu sell boobu da ngeen xam ne alxuraanul karim moo xewleeti alxuraanul karim nag mooy kii di xewle jamono bu nekk ndaxte mooy kii xeetali jullit bi tey ak ëllëg taxawaay bu mat sëkk nag bu oustaz maam Thierno Dia taxaw na ko taal taalub jàngu fii ci diwaanu Louga tudde daara ji maamam ju tedd ja sëriñ ja Balla Thiané daara jooju nag liggéey bu rëy bu màgg bu ñu koy liggéey ci daara ji ah loolu moo tax sunu borom dugal ci loxoom nga xam ne jàng ak jàngale ma fi am daar ji nag war a randu bee ndànk béy ngir taxawaay bu mat sëkk bu oustaz maam Thierno taxaw na ko ndànk béy nag mu di barabab alxuraan mën na ni eh, taal bu ñu yeññili la kii bu jaar ci loo xam ne muy oustaz maam Thierno Dia ci taxawaayu xalifa bi ñu ñaanal guddal fanam dolli wéram moom mi nga xam ne foofu yàgg na bëgg lu mel ne alxuraan nekk foofu nga xam ne taaloon nañ ko waaye nag yàlla jaarale ko oustaz maam bee taal boobu mu di ko yeññali foofu nag moo di waral waxtaan wi muy tegu xeeru internat Serigne Dia Balla Thiané foofu ci ndànku béy ñu nekk nag ci waaj ak wàccaayu bes bu màgg boobu mu di dimanche euh, juróom-ñaari fan ci weeru avril 2024 yàlla na yàlla yu buñ caag jàmm ñu ko gën région Louga di ko gën Sénégal gépp nag waaye di ko gën nag imaam yeeg ulama yi ak sëriñu daar yi nga xam ne seen bés a bopp la ak xalif généraux yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci biir réew mi nga xam ne oustaz maam Thierno ñoom lay liggéeyal ci talub islam bi lu waroon yëpp nag su ko kenn taxawee jaar na ñaanal jaar na gërëm jaar na sant mu oustaz maam Thierno ñaan yàlla guddal fanam dolli wéram mu donne ko ca maam ya bu ne maam ya sëñ ma saxir loo yàlla dolli ay leeram sëriñ ja Balla Thiam yàlla dolli ay leeram yàggal fi Maxtaar Naar loo ak yàgg fi yàggal fi itam njabootu sëñ Moustapha Dia yàlla yàggal fi njaboot bi bu baax a baax kilif kilif suñu Cheikh Dia ñu koy ñaan yàlla guddul fanam doon li wéram cooco nag oustaz Mame Thierno euh, doon na ba loolu tax na nag euh, ñu nekk ci wàcc wàccaay bés bi ba loolu tax na oustaz Mame Thierno euh, mu yebal délégation ba solo boo xam-xam dinañ ci ma jaan yi nga xam ne mooy wajur yi parents yi élèves yi toog ni suñu wet waaye dana suñu doomu ndey alaaji may si ñang ma bi nga xam ne su daara la mu ngi noonu da ngeen ko dégg waaye nag maam Jaara Touré kenn ku nekk xam taxawaayam ci alxuraan bu karim yaan yàlla fayal ñu ko mu teewal fi ndeyu daara yi waaye Serigne Jiir yi kenn ku nekk xam na itam mooy yor lépp ci wàllu xam-xamu daara bi jiite ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci jàppale maam ci daara ji sëñ bi léegi ñuy toog euh, ki nga xam ne mooy sëñ Amadou moom itam bokk ñi nga xam ne jàngoon nañ seen i mag seen delloo njukkal daara ji seen jarbaat fi nekk ak seen doom yi ak si waat ji waaye Ousmane Diakhaté ko présenté moom ci daara ji la bokk doomam fi la nekkoon ay doomam fi nekk ba léegi kon moom itam ñu koy gërëm di ko soté bi waaye nag li ñu def rek mooy ànd ak euh, euh, Babacar ci euh, leeral TV nga xam ne kenn fu nekk ni seetaan ci biir ñu fas yéene ànd yéen ci waxtaan wi kon ma jaañ en tant que président parlementaire ci kàddu gaaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waaw Serigne Ndiaga ni nga ko waxee noonu rek la demee daara ji nga xam ni mooy daara Serigne Dia Balla Thiané te Serigne na ja nekk ca bopp ba tudde ko maamam di sell ja di Serigne Dia Balla Thiané ah daara la joo xam ni ñu ngi ko samp fii ci gannaaw raay te ñu toll ci fukki at ak juróom-ñaar ci expérience liggéey expérience liggéey bi nga xam ne sii nag am nañ ko ci ak gis-gis bi nga xam ne moom leen ciy doxal moom moo waral daara ji yaatal wuti suuf fee ca ndànku ci ndimbalal sëriñ xalifa bey ñu ni dañuy yaatal sunub taal gën a dolli lumière l'islam gën a eh, feddali liggéey bi nga xam ne si moom lañ am ba tax ñu taxawal daara sëriñ ja Balla Thiane du daara ju bees daara sëriñ ja Balla mooy wut yaatal ak di wut a ak di wut vision bi nga xam ne si moom lañ am ci wàllu yar gone moo tax ñu ni nañu yaatal bu ko defee ni nga xam ne moom lañ bëgg a dimbalee gone yi te lépp diju ci xam-xam boo xam ne mooy lii yar gone yi di defar ndaw yi ëllëg yi alxuraan a ca war a jiitu ci kaw gis-gis boobu la taxaw ba léegi ndànku nag comme ni ma la ko waxee woon toog nu ba yàgg ñu may nu suuf rek ñu naan dañ koy def këram dañ koy def commerce dañ koy def laawal dañ koy def la déedéet dafa nekk luy fedd li ab vision bu amoon mooy yar gone foo xam ne da nga fa wéet moom def ca vision ba nga xam ne si moom mooy sa vision wu yar te dara du la ca rax bi nu ko sëñ Xalifa yombalee nag dafa nekk partenariat boo xam ne si gagnant gagnant la ku ne da ci gagné ndax ndànku daara la joo xam ne si moom moo sampoon dëkk ba dem ba ñoom ñëpp ñu ñëw Louga ñu ne nag dañuy dellu dëkk ba fa mu newoon ñun tam ñu am mébatum taxawal daara yaatal ko fettali sunu vision muy ñaari gis-gis yu daje dëppoo li nga xam ne si nag ñun moom lañ ciy gañe moom mooy sunu gis-gis danay am beneen cadre bu gën a propice bu gën a yell pour doxal ko ca nañ ko bëgg ñoom itam liñ ciy gañe buñ demee ba nga xam ne sunu gis-gis bi taxaw na moom mooy alxuraan ba fu mu egg dana fa yóbbu dëkk bi ku ne xam na fi nga xam euh, fi daara kokki ji yóbbu village kokki fu alxuraan ji egg dëkk ba dana fa egg kon waa ndànku bis bii ñu jëm seen bis la mébét mii ñu am pour taxawal daara ji seen yëf la bu leen ca kenn jiitu li jëm nag ci le sens de levenement dama laa bëggoon a euh, bàyyee kàddu gi nga jox ko bàyyi ji li mu delsi ci bu ko defee man danaa ci gën a delsiwaat ci ak yaatal ci li nga xam ne si moom nga ma laaj jërëjëf euh, Madiagne ci sëriñ Jiili Abdou Khader euh, yaa jiite jàngu bi te barab jàngu la ñuy waxtaane muy internat min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziare mbokk ñu toogal yëpp nuyu mbokk yi seetaan yëpp di wax ne jataay bi li ko waral mooy dañoo daje fii ci mahadul islaami sëriñ Jabal Caane ngir fàttali loo xam ne mën a am fàtte wuñ ko woon waaye ngir soññee ci loo xam ne suñu kanam ci ci la nekk comme ni ko alaaj sëñ Madiagne waxee daara ji mi ngi fii euh, ci kër sëriñ dulu dugal ginnaaw raay ci njiitu almudir Cheikh Ibrahim Thierno ja boobaa léegi def na ab diir ndax atum 2007 la woon lu bare bari ci ay góor ak i jigéen mokkal fi alxuraan kon loolu day wan ne la taxoon ñu sos daara ji loola mi nga fay am ndax mbir mu ne ci résultat dañuy am ci liggéey ba ca la ñu xam naka la liggéey ba di doxee alhamdulilah bi ñu ko sosee boobu ba léegi nag daara ji ñu tuddee ko góor yàlla bu baax koo xam ne wax nañ ni ak dundam lépp ci alxuraan ci la ko jeexal te mooy sëriñ ja balla caane xam ne ci mag ñu njëkk ñi la eh, ndax waxuma gis ko waaye am na ñoo xam ne ay mag lañ rek te gisuñ ak njabootam kon mënees na wax ne ci mag njëkk ñi waaye ànd ak loolu lépp nag dundam gi yëpp ci alxuraan ci la ko jeexal mooy jàng ko ak di ko jàngale kon daara ji ñu ngi ko tuddee sëriñ ja balla caami mu samp fii ci ginnaaw raay mu sosoo it ci daara ji e, ci wetu makkaan bi ci manaar ci wetu manaar alhuda ci njiital almudir Cheikh Ibrahim Thierno Dia booba léegi e, liñ fiy def rek weesu lu muy jàngale ak yar ndax nit ki dañuy wax ne nit e, ngir mu mat ki mu doon ndax nit du mat kamaalu mat ci anam yëpp yooyu yàlla moo ko jegoo waaye nit nag dana mat nit ngir mu mat nit loolu ñaar moo koy tënk mooy jàng ak yar jàng ak yar moo tax ñu sos dañu sos daara ji lu bari ci ay góor ki jigéen mokkal nañ fi alxuraan ah, ginnaaw ba ba léegi nag eh, ni mu sosoo woon génn ca te mooy jàngale alxuraan moo tax sax eh, fi mu sosoo woon ba mu demee bañ jàpp ne mel ne bërëb bi aaji naa yaatal moo tax mu ngi ci ginnaaw raay léegi ñu am fi bërëb boo xam ne ñuy jàng de internet ñoom foofu lañ féete comme ni ñu ko xamee daara ji dafa koo ñetti xaaj am na ñoo xam ne raw rawdu atfaal lañu nekk mooy sarne fi ñu yor xale yi matagut a jàng alxuraan am na ñoo xamante ne it ñu ngi jàng alxuraan ginnaaw bi loolu it daara ji def na effort bu rëy ndax dañoo seetlu ne lu bëree bëri ci ñi demoon daara buñ mokkalee alxuraan la leen bàyyi ñu génn moo tax daara ji moom fexe na loolu ba def ci politique bu am solo ñu bëri fii lañ yi mokkalee alxuraan toog fi ba jàng fi xam-xam waaye ba jàng fi ba am bac kenn ci mbokk yi euh, sadiquna al asis si Ousmane doomam euh, fi la mokkale ba mu nga ca bitim réew di mottali am njàngam yàlla na ko yàlla def mu àgg ci àggukaay yi gën a kawe kon day wane ne nekkate daara ji moom deful daara joo xam ne dalay jàngal alxuraan rek sànn la ci biti waaye ndax dañoo seetlu ne lu baree baree bari ci xale ñaari mokkale alxuraan bu ko bàyyee ci mbedd mi ñaari at ñett dafay mel ne bu doon ndab la nga ci defoon dana mel neneen tax daara ji di góorgóorlu ci képp koo xam ne mokkal na fi alxuraan ñu koy téye ci coobare waajur wi ngir jàngal ko xam-xamu diine waaye du ci yam boole ko njàngum école ñi franco la ñuy jàng ba am bac ñeneen ñi france lañuy jàng ba am ci bac ñoom ñëpp yàlla na yàlla maase defal leen ay ndam ak ci fuccawaay ak fuccawaay ma man euh, mën nekk daara ji nag ci ab nombre am wala yi bi nga xam ne moo nekk ci daara ji jege na juróomi téeméeri nit Euh, mënees na wax ne ñaat euh, te lu jege ñaat téeméer yi ñoom dañuy fanaan maanaam ñoom dañuy internet seen lekk ak seen naan lépp ci biir daara ci la leneen li ci des nag mooy ñi nga xam ne dañuy xëy si waxtu suba bu ngoonee ñu wàcc daal di dellu ci ci ci seeni kër moo tax dañoo gis ne baax na lool fi mu toll luñ ko mën a yaatal doyut ndax doomu jullit ñi sox soxla soxla nañoo jàng te euh, pàkki suuf yi rek ci lañ mën a jàngee moo tax bokk na ci li tax tey jataayu waxtaan bi fële ca ndànk comme ne ko almudir ma Madiagne waxee léegi bokk na ci sama sababus woote jataay bii xam ne bokk na ci dañoo bëgg rek yaatal fenn fu ne bu fa ab taal tàkkee kon liñ bëggoon dina am te mooy leer gi dina jolli di dina jolli fu ne. daara ji nag ñu ngi jàng ci riwaayatul Hafs an Asim di fi mokkale alquran ci riwaay boobu di ko njàng njàng mu wérit ndax li fi nekk rek ci ay xale yu mokkal ëpp na ñeent fukki xale xam nga ñeent ñeent fukki rek daanaka nombre daara la maam ñi nga xam ne dañoo mokkal di fi fanaan rek ëpp na ñeent fukki xale primaire euh, école primaire yi am na ci daara ji xam ne tey dañ daan def xale su masaan am entrant sixième wala su masaan mokkal alxuraan day génn dem ci école yi fréquenté foofu ba ba muy am diplôme mais léegi li nga xam ne mooy liggéeyu primaire moom ci daara ji la dee ko defee xale bi bu mokkalee alxuraan ñaari at wala ñetti at dina ci am entrée en ginnaaw ba it balay booba dina fi jàng xam-xamu diine yi nga xam ne soxla wone na ko mënul ñàkk ci ab jullit mu xam ko kon daara ji mi ngi def effort bu bu rëy rëy ci loolu euh, yemul yemul nag ci loolu kese am na sax ñoo xamante ne dañuy jàng di wàcc di ñibbi waaye fi lañ mokkale alxuraan dañuy continuer di ñëw di jàng si waat ci biir daara ji am na lu bari loo xam ne nit ñu bari gëmuñu ko woon mooy jàpp nañ ne képp ku futteekuwul dem ca daara sax fa doo mokkal alxuraan loolu daara ji bokk na ci li ko weddi ndax bari fi bari na fi ñoo xamante ne internet wuñ maanaam féetewuñ wuñ ci daara ji waaye yàlla defal na leen tawféexu ñu mokkal alxuraan kon loolu lu jar a bàyyi xel la nekkul ne alxuraan dangay futteeku rek dem tëdd ca daara ji suba ba ngoon mooy tax nga mokkal ko waaye nit ki mën nay nekk ci leneen lu mel ne jàngum école am leneen leneen lu bëree bëri ci ay xale yu mel noonu mokkale nañ alxuraan fii ci biir daara ji beneen mooy ñu xam ne daara ji li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon woote muy ak njub tege ci yoon bàyyi lépp lu yàlla di xalab ak di aaye tege ci yoon siraatal mustaqim rek moom moo ko sos maanaam defuñu fi dara leneen lu mooy dañu wax ne euh, Ibnu day wax ne. ay borom bi subhaanahu wa taala di wax ne qu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp sawar ak seen njaboot mu ne lu muy addiboohum wa taallimohum jàngal leen leen te yar leen daara ji coo ci loolu rek ci la nekk amuñ leneen lu luñ fi wootee lu dul jàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax boo dikkee ci biir daara ji danga nga fi fekk ci ay nit yu wuute yu jóge ci ay dëkk yu wuute moo xam région yi gën a sore ñu fii ci Louga waaye ba dakaar ba ba feneen ak feneen mbaam ci gàttal boo tuddee mënees na wax ne fenn fi gën a sori ci soow bi ak ci penk bi yëpp seeni doom ñu ngi fi bokk na ci sax léeg-léegi ay xale yoo xam ne bu ñuy ñëw di jàng si fii duñ dégg wolof ndax bitim réew fa la ñuy jógee moom dara la joo xamante ne li yonent bi alayhi salaam dajale woon am mboolam di leen teer mooy dund islaam kese moo tax ñëpp ngi fi murit yaa ngi ci biir tijaan yaa ngi fi kon daara ji daara yi ñëpp la daara yi murit la daara yi tijaan la daara yi kum mën a doon të tërib jullit la ndax alxuraan moom lañ fi jàng te ñun jullit ñi yëpp ñoo maase bokk alxuraan euh, euh, moo tax nag comme waxi wax waxees na ne daara ji moom jàng mi ngi fi am alhamdulilah waaye leen lu ne bu ko nit yoree day ñaan mu màgg tey ak màggam nag màggam gi moo tax jataay bii am ndax màgg na ba bu njëkk bi bi muy door a judd xuraan rek lañ doon jàng màgg na ba yeneen sosuwaat ci ay banqaas bu doon dattub garab ñu ne def na ay banqaas banqaas yooyu mooy léegi am na école français bu ñu jàng ci biir am na daara yu majalis waaye am na sax ñoo xam ne fi lañ toog ba am bac kon nag loolu léegi dafay aajowoo ay bërëb yi fasanti ko ndax xam nañ ne jamono xale yi jàngal xuraan ñoom waxtu yi ñu am di ko jàng ak ñi jàngee école ni ñuy jàngee bokkul emploi temps yi kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ba yàlla defee ne amees na pàkku suuf boo xam ne des koo waajale alquran te yàlla na yàlla def sottal ko euh, def fa naal yeeg mébér yëpp mu jàpp te mooy ndànku gi nga xam ne sëñ Madiagne wax na ko ndànku nag boo jógee fii ci Louga boo génnee di dem kokki boo dawee ñett kilomètres dalay lay féete daanaka ci sa wetu càmmoñ kon loolu xamees na ko bu baax a baax a baax comme que xataa bërëb bi am na rek ku ne yàlla ku nekk sa xel dana nekk ci beneen pàkku suuf kon daanaka mooy sababus liñ doon def ñaan gu nangu la kuy sanc dem ba yàgg fa nga nekk nga jàpp ne la nga fa doon def xajatu fa loolu alhamdulilah moom la ñuy wax te di ñaan mboolem pàkk yu ñuy liggéeyale alxuraan eh, lu ñu soxla woo mu di fa jàppandi waaye tamit ñu ñi nga xam ne dañuy joxe pàkk suuf yi ñu xam ne xale jullit yi waras na leen yarte jàngal leen te léeg-léegi dañ koy soxlawoo ak fu ñu mën a nekk na ci yu mel noonu moo tax ñu ngi sant bu baax a baax a wa ndànku ak kilifa ya fa nekk yëpp ndax bu li amee ñoom dañ cee jàpp baax a baax donte sëñ Thierno yàgg na ko bëgg waaye foofu la ko yàlla jàpp eh, eh, jàppandale. Ah, jërëjëf eh, sëñ Jili sant na la bu baax ci sara bi nga sara doxinu daara ji mel ni internat Serigne Dia Balla Thiané du daaree tariixa waaye daaree julit kon loolu ndono la te daari sëñ Saxir Lo waaye noonu la ca daara sëñ Moustapha Dia nga xam ne jurit bu ñëw rek euh, oustaz maam Thierno jàngal te yàlla tax loolu mu doon ne ko ci wajur ya euh, mu mel ni nag euh, wax nga ne sous région bi yëpp seeni ndongoo ndongo ngi fi waaye xeme ma gu daara ji xeme ma ne ko ak njàng mu wér mi fi nekk tax na kenn ku nekk indi fi njabootam loolu moo waral mu dem ba barab bi xat maam Thierno gis ne faw mu yaatal nag waxtaan ak kilifa yi ndànk ngir yaatal daara ji ñu jox ko bayal boobu ca ndànk ñu fas yéene faa jëm nag eh, ni ki dimanche 7 avril eh, moom la ñuy waajal yan yàlla buñu caag jàmm eh, soxna maam jaara nga teewal fi nag ndeyu daara yi mm-hmm. boo ne lislaam nag faw ñu ne jigéen ñi soxna sëñ Ousmane mm-hmm. kon ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi nga fi teew teewal fi sa nawlay jigéen yi nga xam ne yéen a ànd ak sëriñ maam Thierno ci daara yi sëriñ ja caana ji fa seen a moom ci yaatal gi benn ndànku ñu yebal nag kàddu kàddu maam jaara alhamdulilah aouzu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi lazi bi nihmatihi tatimu saalihat wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada saydina wa maulana wa shafiina wa xabibina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa baadu uhayikum bi tahiyatin muxlisatin min uhtin tatamanna lakum alxayra wa ajmal assalaam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bi ñu sante suñ borom tabaraka wa taala julli si sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu nuyoo lislaam nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu ñëpp ñu ma bokkal plateau bi di jiital si nuyoo bi si mudir eh, eh, Serigne Thierno Dia di ko gërëm macha allah si événement bii ñu jub si nii muy ndànk bi di ñaan yàlla mu yóbbu ñu si incha allah ñu fekk ko tetal ko muy la set. kon jigéen ñi man lañ fi yebal muy yaayu daara yi nga xamante ne suñu association bi association bu mag la ñu ngi mu ngi nekk si daara ji ñu si liggéey liggéey bu am solo jigéen ñi nekk ay jàmbaar lool macha allah di ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay bu baax a baax a baax di leen woo nag ci woote bii nga xamante ne woote lislaam la woote alquraanu karim la di leen wax ne bu ñu si kenn kenn ëppale parce que jigéen. soci day day jouer bu mag si société bi parce que jigéen mooy yaay al umu hiyal madrasa isa ahtataha ahtata chahban taybal axraq euh, ahmad shawqi moo ko wax ne yaay mooy école bu mag école bi nga xamante ne bu yaree du yar dëkk rek waaye dafay yar réew parce que yaay moom mooy euh, roykaay bu mag boo xamante ne euh, papa day xëy dem liggéey yaay mooy des sa kër ga moo mooy mottali yaru doom yi comme moom am na rôle bu mag boo xamante ne war na koo joué ci tarbiya xale yi tarbiya nag buñ duñ ko wax te waxuñu alquraanu karim ndax alquraanu karim moom mooy base bi te sëriñ Thierno moom loolu moo ko ñor ba tey gis nga euh, daara ji ni muy doxee ak ñi fiy mokkal kon nu ko sëriñ jiri waxee macha allah maa ngi siy woot ak sama mbokk jigéen ñëpp ñu am ci taxawaay bu mag a mag a mag a mag incha allah sa set la set sa ndanku ñu ñëw ànd ak seen i morom ànd ak seen xarit yi nga xamante ne bëgg nañ daale ji ak ñi nga xamante ne ñu ngi safoo daara ji ak képp koo xamante ne dafay jàppale alxuraan buñ ko ko mënee jot jotale ñu jotale ko ñu ñëw fekkee bés bu mag boobu nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a amal ca Ndankubé incha allah yaa nañ fa yàlla yóbbu ñu fekkee ko tetal ko incha allah dinañ ñëw si programme bi su ñoom eh, ñeneen ñi waxee incha allah après dinañ ñëw si programme bi soobee suñu borom tabaaraka wa taala. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, sëñ Ousmane. Eh, Euh, maam jaara yàlla na barke maam jaara wàcc sa kaw ñu ngi lay gërëm dañu wax ne góor baax na jigéen baax na euh, lii mooy alxuraanul karim euh, mooy li nga xam ne moom la wajur war a taxaw seenu njaboot ndaxte kenn ku nekk sa njaboot njaboot gi daal jox ndénkaan dana la ko laaj ëllëg te bàyyi fi doom ju mokkal alxuraan wala nga jàngal sa doom moom mokkal alxuraan loolu dara féetiwu kaw kon soxna maam jaara jërëjëf waaye nag sant yàlla bu baax nag sëñ jiili yi sëñ sëñ Amadou Diagne mi nga xam ne bokkati ñi nga xam ne ñoom ñoo génne woon ci daaray Koki muy leeru sotti sa ma naa wax daaray parce que daaray sëñ Jabala Caar mooy daaray Koki sëñ Matar Naar Lo yàlla na yàlla guddal fanam lépp moom la yàlla na yàlla na sottee ci loxom eh, ak njaboot sëñ Moustapha Diagne yëpp eh, sëñ amadu yow yaa fi teewal ah ñu jigéen ñi fi génne ñëpp ak ñu góor ñëpp yaa fi teewal yàlla na yàlla barkeel leen ngeen da ngeen di ñëw nag ànd ak maam Thierno ci internat Serigne Dia Balla Thiari bi nga xam ne ci ngeen ànd ak moom ba ba talxuraan ba yàlla dimbal leen ngeen nekk yeneen diiwaan lépp njàng mi waral ko fii ngeen tàmbalee ngeen teew fi nag ngir fas yéene matal kóllëre gu dox seen digganteeg maam Thierno waaye gu dox seen digganteeg seen tuut tànk yi nga xam ne ñoo leen fi wutu ngeen fas yéene ànd ak moom ba ca daara yi ndànku ji ñu teg xeer wi ba yàlla def ñu indi génne koog jàmm resort sans yebal la kàddu gaangu suñu amadou auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu plateau bi yépp di nuyu mbokk yi ñuy seetaan di ñaanal télévision bi nga xamante si nit ñoo bokk jotaay bi tey jii nii waaye di jiital nuyoo bi sunu sëriñ sëriñ Thierno Dia tey ñoo ngi ci internat Serigne Dia toog fi la ñuy amale jotaay bii di ci sant bu baax a baax di santaat bu baax ndax buñ demee ba ba jóge ci daara ji ñëwaat toog ak sunu ay kilifa sunu ay papa di jëmalaat daara ji loolu ak ak ak cant la. Hmm. waaw kon man maa fi teewal ñi nga xamante si nii ñoo génne woon ci daara ji bokk ci njabooti daara ji di wax ci seeni kàddu waaw comme niñ koy waxee rek. ñi ngi amal pose première pierre ca ndàngu bi waaw loolu nag ak cant la waaw ndaxte yaakaar naa ne buñ jógee ci bërëb dem ba xalaat ni maanaam fi ñu nekk maanaam xat na wala it jaadu nañu randal ko ba nga xamante si ni foofu moo gën a yaatu ci yar xale bi wala it moo gën a yaatu ci jaamu yàlla ndaxte fii ku ne xam na ni léegi bërëb bi xaw naa xaw naa soppiku daara ji xadd na waaye fii nit ñi ñu ngi ñëw waaw kon nag pour mën a wéet ak xale bi yar ko yaakaar naa ni amee ko amee ko fu yaatu fu gën a dal xel mooy mooy mooy gën daal loolu moo waral maanaam euh, randu li muy ak cant nag wax dëgg yàlla waaw ñu ngi ci sant bu baax a baax di ci di ci kontaan te di ñaan bés ba nga xamante si nii mooy le 7 avril ca la événement boobu di amee ñu ñaan yàlla suñu boroom yóbbuñ ci jàmm def ci ay xéwal yu yaatoo yaatu te it ñu ci woo njabootu daara gi yëpp di ci woo képp koo xamante si nii alquran ñor na la wala képp koo xamante si nii bonne volonté nga tey tey def te yàlla tax ñu ngi la ciy woo di la ci di la ko yëgal man képp koo xamante si nii maanaam xam naa ni kuy jëf lu kuy kuy def lu baax nga dinaa la ko wax waaye di ci di ci soññ maanaam samay moroom ñi nga xamante si nii ñoo ne ñoo ne ci fépp ci dëkk bi daal képp koo xamante si nii maanaam taxawaay la eh, information la aussi képp koo xamante si nii war nga koo jàllale maanaam nga jàllale ko sa moroom boo gisit nga ne ko am nan bés sangam am nan pose première pierre loo ci mën a def wala loo ca loo ca mën a taxawu daal incha allah kon ñu ci woo ñëpp ci côté bépp nag waaw dañoo mënewul wax ñu ngi bu baax a baax incha allah Amadou ñu ngi lay gërëm di la sant ci teew bi nga xam ne teew nga fi ñi nga xam ne ñoo gën ci daar ji yabal la nga représenté leen yal yàlla gën leen defal jàmm ñu fekkee bés bi nga xam ne mooy am ca ndànku bay muy tegu xeeru internat Serigne Dia Balla Thiané foofu ci ndànku bay nga xam ne boo jógee Louga rek eh, jëm warak boo génnee daanaka Louga rek sa càmmooñ boo sànnee sa bët da nga ndànku bay foofu lañ jox hectare yu am solo maam Thierno Dia am bëgg-bëgg ak yéene wéet ak njabootu jullit ñi ngir yar leen tarbiye leen te yar ak tarbiye fokk nga wéet fokk nga làqatu loolu rek moo jublu ci oustaz maam Thierno mu am boobu xalaat nag fas yéene ko jëflanteeg njabootu jullit ñi muy lu waroon ñëpp nag wax nga ko sànq ci wàllu jàppale képp koo xam ne ki yaa ngi lebal lebaloo maam Thierno suñu borom ngay lebal ba tax na lu jëm ci fer ak ciment ak béton ak njëgg Eh, soo lebele suñu borom dana la fay bés bi nga xam ne doomu aadama aajowoo ñu fay ko bésub taxawaay ba ba tax na numéro yi ñu ngi koy joxe dana feeñ ci ngeen di ko seetaan mu di 76 151 08 12 wala 77 438 59 83 loo ci yónnee rek dana la ko defal ca daara ji nga xam ne moom la ñu amal ca Ndankubéy mu di internat Serigne Dia Balla Thiané waaye ñu ngi toog sëñ Ousmane kenn ku nekk xam ne ne moom ci daara ji la bokk moom lañ ne doomam fi la nekk ba am ay lijaasa benn bitim réew ñu koy ñaanal yàlla defal ko ci lu kawe njortam yaakaar yi ñu am ci moom yàlla yàlla mottali ko ci barke Serigne Dia Balla Thiané sëñ Ousmane kàddu kanko aoudu billahi min alcheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa liñ naan xol bu xasee sedd te li ko seral lu dara lu dul ndigalul yàlla lu muy déglu ak di ko dégg ku ko bëgg a wax looti mën nga koo gëlëmloo te it mu ngëlëm li mën a jóge ci ñaari mbir <clears throat> jëmmi li ñu woo ba ñu toog fii mën naa cee gëlëm waaye jëmmi jëmm ji ko woote it mën naa cee gëlëm waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ndax alquran nee woon na wala taktum shahaada wa man yaktumha fa innahu aathimun qalba ah li wér te de noonu ci fiñ ci féete te jàpp ni ci lañ war a waxe mooy man de jëkkante bu ma mës a dégg wala giiroo bu ma mës a dégg jàpp naa ne bii ciy farata ba alquran di wax baada audu billahi min asheytaan rajim yaa xawmana ajibu daaciya allahi wa aminu bih waxaat beneen yoon ni yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum waxaat ni waxul amalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluh sadaqallahu alasim aay yi ëpp na ko waaye na njam ci ñett yi damaa jàpp ni yii mu junj yëpp ko dajalee ci woote bii ngeen bokk yi tedd yi ngeen toog nii di woote tey loolu képp doy na ci ñu waxtaan ci ba mu jeex ñu ba ko lan la woote li yàlla bëgg ba wax sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay reñaane jële ko fi mu ko jëlee yóbbu ko ca kaw wax ak moom lam fa wax ak moom ba mu del si dinu wan niñ koy defee la ko firndeel nga xamante ne ci lañ ko xamee ba ne nii la woon dara génnu ci alxuraan mu dinu ko bindal ni aaya bi moo wax lii ni naa def nii nga xamante ne ñëpp d'accord nañ ni benn arafu alxuraan wala benn baatu alxuraan wala benn aayab alxuraan su dul woo li ko yàlla mooñaat di ko di ko oyofal di raxas di oyofal di raxasal di oyofal ba mu xaj ci gémmiñu doomu aadama làmmañ dana të ci wax ci wenn arafu leer mm. ndax diisaayu alxuraan waaye nag alxuraan ñëwal na ci boppam yombalal na ko ndax dañu arrahmaanu ba pare ne allama alxuraan yërmaande ji mu jiital li ki dàq yërmaande mooy kii xam ne alxuraan mooy kon lu ci doon diis teggil nanu ko ba mu mën a xaj ci dëndu mag waaye mën a xaj ci dëndu xele bu ndaw kii toog seere la ci woote bii nag dafa rëy ba jéggi dayoo ci man ndax sa waay maanaam junj yi mu doon am ak gént yi mu doon am ak nisir yi dafa mel ni yàlla dafa taxaw temm ci forcé ko mu wane ko bi maanaa si ginnaaw tuuti laata ñuy am suufu dànk bee nga xamante ah, dànk bee nga xamante ni ardul muqaddasa la ñeel alquran yàgg nañoo toog guddi di waxtaan ba fajar di jot itteem yëpp mooy nu mu mën a amee dara ci xaalis bu mu lew mu jënd ay pàkk dajale ko yu sisaloo ba mu mat daara ju mag mu rëddaat ko muy daara mm-hmm. mu teg ci keroog bi mu jógee makkatal mu karrab ñu jëlee ko aéroport di ko indi li mu njëkk wax dara lu mu am te mënu koo jox yàlla bëgg ko mm-hmm. ni ma Ousmane maa ngi moom képp ci nekk mm-hmm. ma ne ko ah, ma ne ma baa xam nga ni man du ma am kër léegi guma moomal sama bopp ma ne ko loolu kenn du ko wax ndax kër yi bi yàlla wàcce suuf ñëpp ko bokk loo ci war a am da ko war a am mu ne damaa bëgg man fas yéene lu muy yëkkati wan ko yàlla muy wax fa ci moom yàlla nag nangul na ko ndax gii ñu toog waqfu la géemu fàkk waqfu la te wér na mu ne li ci xolam bi la neen li muy wuti buñ ci jàppal waqfu lay doon waqfu nag ku am xel gis ku ko wut ba am ko yow man ko wan boo muusee da nga dugg ci biir waqfu bi nan nga ciy duggee gis nga boroom alal dana yor ba doyal loo gestu ni moo ko moom fekk moomu ci dara moom si xam na ni moom ko ndax sallallahu alayhi wa sallam d'accord na ne li nga moom mooy la nga jiital di ko fa fekk ñu la cee atte muy sa njariñ li nga denc te moomu ko mooy li ngay wane ginnaaw ña ngi ko bàyyee buñ ko séddalee ba téye ko kuñ ci ne ne la ci dindal ab socc bu ko neexee lànk moo tax ma xam ne moom comme xam na lan mooy waqf te waqf bii nga xamante ni moom la jëmbat nii ba mu jur doom jee ñu war caa jub jublu ca mel ni ku koy yokki muy lu ñu war a wutal aw tur ak samp ko mu dox ni li wér te mooy ñu bari dañoo jàpp ne ay waajuram a tax a jóg waaye déedéet yoonu àjjana lay ubbi ngir ku bëgg dugg soobu ndax ñëpp d'accord nañu wenn yiw mooy wi sax wi sax ci mboole yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadisam boobu benn ci benn ci sax gis nga xam-xam bu nit di jariñoo mooy bi du ràpp garab gi nga jëmbat mën naa dee ñu xar ko mat mën naa meññ ba meññatul mën ngaa toxu ba ko fa dem doom ju baax ji ni moo lay ñaanal man ngaa am doom te du baax wala mu ju baax ñaanal bu mujj mu jiitu si fekk si la desee la tool lu ko fi dese waaye xam-xam bu ñuy jariñoo moom ba ilal abat day continuer ñu ci jariñoo kon lii mooy wax pire mhm. te nag xool leen 17 ans nga ne ko ci waar di jóg di daanu fekk ngeen lépp luñ ci wane luñ ni yaa ko war a mën a moom buñ ko xoolee wax fu la ba pare wëlbati ku amoo dërëm boo xamante ni yaa ko moomal sa bopp teg ko foo xamante ni buñ la gëdoon tey nga jëli ko ci loo moom kooku su ne alxuraan lay liggéey neex a gëm mm-hmm. waaye nag man nee naa ko du du xar baax ci li ma fekkee li ma dunda doog moom dippi ca kokki cerno léppam léppam léppam nu mu def ba jariñ mu àndal képp la mm-hmm. maanaam ba ci xarit yi muy àndal sax comme ci man a doon bu la neexee na tal teg saa boo xoolee li mu séq ak moo ci ëpp intérêt te fu wér laa ko teg lu ngeen xaritoo xaritoo bu ngeen jogee di tukki defe na ni moo la war a jox nga lekk defe na ni moo la war a jox nga naan lu muy jënd pour boppam def ko ñaar pour yow am na yoo xamante ni jataay bi laa yu ko mënuñu koo leeral waaye li wér te wóor mooy ndaba ngi yi loo xamante ni taaj nañ ko ngir jaami yàlla yi raxas ci sukk waaye ku yàlla dimbali ba nga sukk ci ci kàttanu yàlla dootoo xiif dootoo mar li ma bëgg a wax lépp mën ma ko continuer naa yemandi foofu ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, Sidina Ousmane jërëjëf wax nga dëgg 17 ans 18 ans oustaz Maam Thierno amul këru boppam muy fàkkal rek daara muy fàkkal rek daara fa séenee ni waroon ñëpp moom mu jànkoo fa ku yanu wuutu way juri ci seenu njaboot ngir ñu jëriñ tey oustaz ku ànd ak moom bu ñeriñee dee fukk juróom-ñeent yow la ñeent loolu wér na Ousmane kenn koy da nga faat Ousmane wax maam taxawaay yëpp la taxaw kon bu dee fàkkal fee internat Serigne Dia Balla Thiane ngir jullit ñi kenn ku nekk war na ci def loxoom nee nañ gën kilifa bi muy waaj a faatu euh, dafa ne damay dénkaane sama alal ji yëpp nañ ko génne euh, fii ba ci armée li ma faatu na ngeen ko fi tasaare bu ngeen ma sangee ba sàng ma na ngeen bàyyi samay cat yu baaraam bu leen bu ko bu leen bu leen ko sàngaale ba mu ne ko déet bala ngaa dee kay waxal lii nga dénkaan lu tax nga di ko dénkaani mu ne sama loxo yi ñu sàngul damaa xam ne bi may ñëw ma dara bi may dem du ma yóbbu dara damay wane. alal jii nag ma ne tasaare ko ba caar mee la damaa bëgg ni ñu gis ko xam ne alal amul njariñ na nga ci lebal sa borom ndax lépp laa koy bàyyi ku fi doon xam ne li amul njariñ rek la ale laa dina mm-hmm. xiinu lay la ku tax a dékk sanam du fees kon Ousmane maam Thierno ngi woo julit ñëpp julit ñëpp ngir ñu lebal suñ borom leble nag internat Serigne Dia Balla Thiaré ba ci ndànku béy la juróom-ñaari fan ci mois de avril julit ñëpp kilifa diine yëpp Sénégal yëpp bitim réew ñëpp lu ci waay fas lebal suñu boroom ma jaañ numéro yaa ngi nii mm-hmm. loo ci lebal suñu borom dana la ko dencal. keroog bañ koy woo numéro yaa ngi ni lu ci dugal te maam Thierno la ko defal ca daara ji 76 151 08 12 wala 77 438 59 83 yaan yàlla def ñu egg ci ak jàmm ubbi ko ak jàmm mu jëriñ jullit yëpp euh, may sa bésam alxuraan la ñu dëgmal internat Serigne Dia Balla Thiane ca Ndanko le 7 avril kaddu gaa goog jërëjëf Serigne Ndiaga man de sax sëñ Ousmane dafa tooyal sama xol di ñaan jataay bii ñu toog yàlla na suñu boroom teg loxoom euh, xale bii rek doy na exemple ba mu toogee ba léegi moom laay xool tarbiya moo tax mu yaru nii bi teel bii bokk ci yónniwul du ko laal alxuraan rek man lool mokkal alxuraan depuis ñaari at Serigne Thierno yéemu jàmbaar jaama yéem sëñ ma saxir ñett a ngi nii fokk Serigne Thierno mel ni mu mel sëriñ ja Balla Thiané sëriñ Moustapha Dia Serigne Mat Sakhir Lo ku ku nekk sa dynamo lampe bu ñu ko branché mu leer kan mooy Serigne Thierno jàmbaar ji nga xam ne bi mu nekkee ci loxoy Serigne Mat Sakhir Lo tegul woon bëtam bi kenn ku dul sëriñam bu baax ba ni ko yaay sama idole yaay sama référence yaay sama repère Serigne Mat Sakhir boole ñett. xam-xam ak wét ak gore waaye nag wét li ko woon nun xamul njariñal ëllëg sëñ ma saxiloo nag mooy robinet bi ku branché yi ca nga naane moo defar entrepreneur yi moo defar entreprise yi moo defar bonne volonté yi moo defar xaafisul quraan yi moo defaraat borom daara yi fee ñu jëm damay xalaat bu fa jógee am seneen suuf ndax boo déggee résidence Serigne Mat Sakhir Lo ay nit a lu tax ñu tabax ko jàmbaar ji nekk ci moom yar leen yor leen jàng leen alxuraan yiir leen yërëm leen miinal leen boppam ba seen wërsëg Serigne Mat Sakhir ko moom Serigne Thierno damaa dégg nga ni amul suuf ajjana la am ndax fii da nga jaar rek hasard la Serigne Mat Sakhir jàmbaar ji garaam boobu lañ ko mélangé moom lañ ko moom lañ ko donoo waaye boo xoolee suñu Maxtaar Naar taxaw bu mu taxaw ak Serigne Fallou Lo borom daara ñett koy tas ñàkk a jàng tas daara du ko tas mar ko tas rafle du ko tas Serigne Thierno nag bu nee étage mu ngi joxal boo xoolee fleur yi mu ni dong yee fii féexlu xale bu mokkal mu wuuf la yér la ànd ak ndey daara yeeg bàyyi daara yi lekkul dara bàyyi kenn kon bu ñu ko joxee suuf yaakaar naa ni moom dafa sawar di woote waaye li mu am xajul ci suuf. ñaan nag lañuy def ndax ñun suñ wële rek moom sëriñ noo ko dox ci li nga wax léegi ci mbaaxam rek ki la wooy xamala ni la maak say maam benn lañu woon lu luñ masaan am bokk kaay lu ma am nu bokk mënoo koo fay bi mu initié daara yu mag jële yor dongo yu bari danaan xëy tari bi huit heures ba vingt heures du pare sëriñ Thierno nag sosul dafa sof sëriñ Thierno soful daara ndax dafa jóge kokki nattango mi bokkaloon di jàng ñii dem ndakaaru investir ñii dem France ñii dem Allemagne mu ni joxaat leen ma seeni doom ma téyel leen ko defar ko ba mu baax ni ma sëñ ma sax defaroon delloowaat leen ko bu ëllëgee ma woote ngeen wis ma benn ngi ni toog kon Serigne Thierno bu wootee ca ndànku waa ndànkoo am sens ndax tey bu ñu leen woon jox leen jaay leen ma suuf ma def ko benn R plus 4 ñu jox ko ko bu noon jaay leen mu suuf ma defar ko bu ma bëggee nopp dafa nopp jox la ko waaye jox leen ma suuf ma def ko wax fu lillaahi jël doomi julli di jàngal leen li seen ma saxir defoon ci man ma defaat ko ci moom def ko ci seeni doom loolu nag wuute ko daa wóorut li des nag mooy ciment ak suuf a koy tabax te yéen ñiy jàkkaarloo ñun à travers Leral TV di borom alal di ay borom bon bonne volonté Serigne Thierno ñaanu kenn añ ak reer ak ndekki ñaanu kenn facture courant di yewoo ñuy soor saako ceeb par bis di añ di reer di ndekki te bu njëkk moom mu daan taxan di taal di jàng tey mu taal ay lumière di jàngal ay doom ñu mokkal mën na lépp waaye nag ku bëgg ñëpp jariñu looy def boole ci ñëpp waaye nag mu toog ay borom xam-xam parce que dañu teg benn comité pilotage pour daara ji kii toog di wéyjuru donga yi moo gën a bëgg Serigne na donga yi hmm. te balaa sëñ Thierno nas mooy mm, fas catu wëñ gi di nit ku baax sëñ Diagne waaye sëriñ Jili mii xam-xam bi mu am mu ni dama koy partagé ak jullit yi waaye sëriñ Thierno jardin ba ba ngay am mbag du tàggoog yow da ngay nekk jardin jox ko xale bi mu xale bi gimmee ci alif ba gimmee ci faatixal kitab bala muy jël euh, ijji day mokkal faatixa mu ànd yow ba nga wàcc mu ànd yow ba nga mokkal mu ànd yow ba nga wattu xam-xam mu ànd ak yow ba nga am mbag mu delloo la say bokk toog des yàlla ku dul nitu yàlla mënoo ko wax ji bu buñ ko toppee sax mën naa gudd Serigne Thierno dafa woote ñun da duñ ko wuute man nag maa ngi naan képp koo xam ne yaa ngi ñu seetaan à travers les médias ak foo ñu mën a seetaanee dañ leen di woo ci liggéeyu yàlla bi ndax tey bu buñ dégg résidence Serigne Mat Saxir ay nit a ko tabax bu buñ déggee restaurant Serigne Mat Saxir ay nit a ko tabax waaye bu buñ déggee daara Serigne Jaballa Thiané ay nit a ko tabax di leen ñaan nag incha allahu rabbi jour boobu xam ne dañoo war a teg premier père bi waaye kuy ñëw loo am bu ko fàtte ndax kenn doom xeexu ci sa arme ku yaakaar ne nag boo faatoo yàlla di la laaj li nga yor foo ko jëlee noo ko def ak noo ko am boo ñëw wacc fa sa xaalis waaye ku yaakaar ne am nga pay yàlla ëllëg ñu ngi lay ñaan boo ñëw loo am nga indaale ko man de uma dara waaye fi mu toll nii bu soobee yàlla ak yonent bi fii ba booba lu ma for naa ko sànni ci daara ji ndax liggéey ma sama bopp yàlla suñu borom laay liggéey dañu nekk nag ci weeru koor xam naa ne dañ leen di bàyyi kàddu gis ndax weer yi dafa nekk weer wu lawet weer wu yëwén weer wu yërmande alquran wàcc ci laytu xadr ci lañ ci lañ koy def xale bu ndaw bi li nga wax léegi rek alquran bu masaan wàcc yoon yonte bu waree gileem bu gaaw la toog tànk yi damm suñ borom meeb ko teeg ko ba nit mën koo toog mokkal ko ci kaw basang nit mën koo teg ci sa lupp jàng ko mokkal ko bu ñu demee ba nit damay tabax ay daara jox ko nit ñi ngir yàlla kooku nag war nañ cee taxaw bu baax suñu Ousmane da ngaa dawal sama yaram xam naa ñu delloo Serigne Ndiaga kàddu gi ba ci kanam fekkente ni dëgg na ñu ngi koy jégalu ndax ressortissant yi cofale leen fi bàyyi ndeyi daara yi cofale leen fi bàyyi bàyyi jili cofale ko bàyyi ndax Serigne Thierno bu weexoon nag kaani ku fi ñëw doo fi toog jërëjëf eh, may sa ñu ngi lay gërëm jërëjëf ngi lay gërëm bu baax li nga wax ku la dégg sa tur fi mu dem sax eh, sa jëm eggu fa la ko fa yóbbu nag ba alxuraanul karim moom nga bëgg eh, mooy li a bëgg nag wax nga ne kuy dem xeex doo bàyyi sa arme gannaaw toolab suñ boroom a ngi nii ku bëgg loo ci def mu sax nga góob ko jëriñoo ko tool baa nga ne muy ndànku béy muy institut bu fa Serigne Dia Balla Thiane fa seen taxawal du doon daara rek dana am juma dana lépp loo xam ne dana jëriñ doomu aadama dana fas yéene faa nekk ay milliards fay nekk a ah, boobu bis jaar na jiyaar kon jaami yàlla yi jaami yàlla yi nga xam ne ñu ngi déglu rek ku yëkkati loo xam ne suñ borom dana ci dana ci bég rek ñu ngi ñu ngi fas yéene jàkkaarloog yow fas yéene jëf ci la nga yëkkati kon taal baa noonu. oustaz maam Thierno Dia mi ngi jàkkaarloog yéen bés bi nag sëñ Ousmane euh, Madiagne fépp fu kilifa diine nekk ci région bi oustaz maam Thierno dafa yebal délégation ñooñu waxtaanee ci bés bi muy kilifa diine yëpp. autorité yëpp ko ci gouverneur Ndeye Ngenaar Mbodj ak préfet sous préfet yëpp ak maire yi euh, oustaz maam Thierno ay ndaw na ngeen léegi rek na ngeen ñu xaar oustaz maam Thierno ñëw ak i ndawam. ndaxte bés bi seen bés la yéen ko moom waa Louga moom région bi ko moom Sénégal moom euh, may sa ko. institut Xaadimu Rasuul bi sëñ Muntaxa yëkkati muy 38 milliards ay jiite liggéeyuñ ko ay jaam lebal seen borom ñoo ñoo ci def seen alal te damay dégg ma jaañoon alal ci xol la sax ëpp naa wax alal na sax ci loxo eh, xol li ci war sax mooy gëm yàlla ak xam ne li nga yàlla moo la ko jox dafa la ko joxeloo waaw ah, ñu ngi xamal ne ñu ngi des sa juróom benn minute ma jaañ waaw parents d'élèves yi fi nekkal ah jërëjëf Serigne Ndiaga xanaa di feddali kàddu yu rafet yi nga xam ni jot na fee jib te leeral lépp muy ni demunu ndànku pour sos lu bees demunu ndànku pour toxu dañuy dem ndànku ngir euh, ngir ngir ngir sof ak ngir feddali loo xam ne si gis-gis la ci wàllu yar li ma ciy dolli rek moom mooy bis bi nga xam ne si moom lañ woote bis bis la boo xam ne sii dañ cee def ak tooba tooba gi nag dañuy woo ñëpp ñoo xam ne si alxuraan ñor na leen ku mënta jàngale alxuraan alxuraan tobbil na la ngir nga def ci saw ñaq ngir bu ëllëgee tooba gi lu ca saxe yaa koy góob yaa koy moom kon daal ki nga xam ne si jël na dogalub ni damay yaatal damay woo samay mbokki jullit ci taxawal alxuraan kon kooku moom mooy ki nga xam ni moom mooy wut jariñe te loolu moom mooy li feeñ ci kàddu yi kon ma feddliwaat numéro yii ak jour bi le sept la ca ndànku bay ca yoonu kokki trois kilomètres boo ko jeexalee boo xoolee sa càmmoñ da nga seen ndànku ca bërëbu sëriñ xalifa bay ba nga xam ni ñu ngi koy dolli di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ba lii muy séentu suñu borom defal ko ci ndam 77 438 59 83 77 438 59 wala 76 151 08 76 151 08 douze kon ñu ngi ciy woo ñëpp ngeen def ci seenu ñaq bu ëllëgee mu jëriñ leen sëñ Massaxir daan wax dongam yu tedd yi ne leen daara euh, bu sëriñ teewee donga teew mbaar teew rek daara mën naa tàmbali waaye tàmbali gi duñ ca yem dañu bëgg ànd kook yéen ba lépp doon ay tabax dooni milliards yi nga xam ne tey moom la fi sëñ may sa wax ci kàddoom yu rafet yi kon ma sëñ Njaga maa ngi lay jox kàddu gi ñëw euh, jàllale ko bu ko defee li mujj ci programme bi ñu wax ko balaa jeex. ah jërëjëf euh, sëñ Madiagne euh, maam Diarra bés bi. waaw programme bi waaw incha allah. mi ne sous ndigal de Serigne Moustapha Dia sous la bénédiction de Serigne Makhtar Nalo de Koki sous la présence d'honneur de Serigne Khalifa Bey chef de village de Nankou Bey Serigne Thierno Dia en collaboration avec son personnel l'APE et les ressortissants de l'Institut islamique Serigne Dia Balla Thiané vous convient à la cérémonie de pose de première pierre du complexe islamique Serigne Dia Balla Thiané qui aura lieu le 7 avril 2024 à Nankoubé. Au programme, 8 heures, mise en place, 9 heures, récitat du cinq coran 10 heures, allocution, heures, prestation des élèves de l'Institut suivi de la remise des diplômes. 12 heures, 14 heures, pause première pierre, puis euh, prière de Tisbar. Soirée, Nafila, clôture, camire suivi de la récompense des, des, inter, des internats de l'Institut par les anciens. Votre présence est vivement souhaitée. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu programme baa ngi noonu ñu ngi siy woo ñëpp nag incha allah. Ah, jërëjëf bi ngi noonu juróom-ñeenti waxtu rek. bañ julee fa tusubaar euh, ñu weccante fay kaddu ñaanalante fa ziarante fa deux heures nag ñu teg xeer yu nag ci kilifteef sëñ Maxtaar Naaroo ak kilifa diini ci région bi yëpp nag ak autorités yi ñoo koy teew ak xarit ak soppe yi ak wajuri ndongo ak soppe alxuraan euh, bu ko defee nag daañu fa naafil la décoré fa xale yi nga xam ne tubaarkàlla wattuñu alxuraan benn yëpp tubaarkàlla lépp dana yemb kon bés la boo xam ne bésab jaayante la nag bésab jaayante la ak suñu borom nañ ko bàyyi xel nañu fàttali ko bés bi jàpp ci lu waay am na ko indi bu kenn bàyyi dara taxawaayu sidna Omar taxawaayu sidna Alioune taxawaayu sidna Ousmane taxawaayu sidna Aboubacar euh, looy tëjee sëñ ji li waaw mbokk yi ñu ngi woo ñëpp di sof suñuy kàddu ci mbokk yi jiitu li waxoon rek di ci soññ ñëpp. bàyyiwuñ kenn lu ca waay def yàlla la ko defal ndax borom bi nee ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun doo leen am aljana ndare bu da ngeen a dépassé li ngeen gën a bëgg kon bunt la boo xam ne sëñ Thierno da koo ubbi waaye mi ngi ko ubbil mboolem jaamu yàlla yi ku bëgg a lebal yàlla bunt baa ngi noonu lu baax la tudd mi juddoo fii ci Louga ci ñaari ñaari waajur yu baax ci famille bu ñëpp xam bi ci at yi dal jàng dem ko jàng a kawee ci alxuraan te mooy mën koo bind mokkal ko mën koo bind doo ko xool ginnaaw ba it jàng na fa njàngum école mu tuxoo fa dem fréquenté bërëb yu bëree bëri fu ñu jàngi xam-xam ku wax ku wax euh, ndar diiru bu mu fay nekk di jàng jàngum diine di fa jàngale wàllu alxuraan dem na tuuba waaye ñëw na fii ci majalis si Alaaji Malick fépp maam fépp fu ñuy jàngee ci réew mi daal mënees na wax ne jaar na fa jàng kooku nag bu jàngee ba xam la mu war a xam ginnaaw mu ñëwee kon ko bokk ak nit ñi naka la dee si def ngir taxaw ngir jàppandal loola loola loo am solo la lool. di seere rek ne mbokk mi sànq li mu wax day lu am solo mooy ñi jox suuf ñi jox suuf si sëñ Ceerno ñu dalal seen xel ne dañ ko jox yàlla ndax euh, du ci dara ngir moom wallaahi. Euh, fii indi nañ fi ay jëfandikukaay yoo xam ne buñ ko ko buñ ko ko buñ ko fi indee ñëpp mën nañ ko bokk ndax njabootam ci daara ji lañ dëkk lu mel ne ventilo jamonoy tàngaay waaye njabootam laaj nañ ko seen ventilo dafa baan mu leen ventilo yi moom ma ko daara ji moom lañ ko jox ku ku toll ku toll foog ci ak sàmmante lépp luñ la jox te yàlla tax loolu da nga ko sàmm te delloo ko ci yàlla beneen mooy muamala jëfal jëflante bi muy def ak xale yi rafet gu mu rafet ndax euh, bu yàggut dafa am mbokk moo xam ne dafa wax doomam man de damaa jëm bi bëgg koo yóbbu ziyaara benn nag ma yóbbu ko ci wala ma dama lay laaj wala suñ ceenu daal sama xel day xale bi ne ko man day soo ma doon laaj xalaat dama lay wax nga yóbbu ko si ceenu da nga jox ma ko loolu lu màgg a màgg la képp kuy yor ab xale bu bàyyi xel jëflante bu rafet googu euh, ñu ngi amul par par li ñu taxasub fii amul ñu ber ñi ñoo sant ñi wala ñii ñoo jóge fii déedéet mboolem daar yëpp ñoo bokk fu ñuy fanaan ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk heure yi ñuy jàng ñoo bokk heure yi wàcc moo tax beraluñ kenn daara jaal li fi li fi nekkee mooy liggéeyal yàlla te jaarale ko ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee moom la ko defal ndax léeg-léegi nit mën naa lebal ku koo xam ne sax dina am bu fay jotee la mu yoroon mu perte ko wala nga lebal koo xam ne amul fay mais borom bi subxanahu wa taala lu mu wax dina ko def te nee na nit ku nekk lu mu def ci ak mbaax dina ko delloo kon ñi nga xam ne mën nañ ko ñu ngi ciy woo ñëpp lii bën bën la boo xamante ne lu ci waay jëmba du ëllëgee yow yow la ñeel ñu ngi woo mbooleem ku ci man moo xam mu néew wala mu bari bunt la boo xam ne ubbi nañ ko. lu waay di lebal mën na ñëw lebal ko ci yàlla ñu ngi woo ñëpp di wax ne yàlla yàlla mottali naa li yàlla yàlla mottali naal yi barakallahu fikum jamian eh, jërëjëf eh, sëriñ Jili ñu ngi lay gërëm bu baax eh, ñaar yi nga wax rek doy na ci doomu boo xam ne mi ngi ne jullit ñi dama bëgg a seen njaboot wuutu leen ci sa wantiloo kër paan nga am wantiloo yu bees tàq ñu indil la ko nga neen man kat wantiloo yi moom mu ko xaar leen ba ma mën a jënd ay wanta jëndal leen ko mais wantiloo yi njabootu jullit ñoo ko moom duma ko jël bi ci des sama jur wol na rek traagi que dama la ko bëgg a jox wala ma jaadu ko sa sëriñ nga am kóolu def ku toll ni na ko jaadu ci sa sëriñ nga doyloo goo ko doyloo sa sëriñ ak wóolu goo wóolu sa sëriñ ak ñeewantu gu oustaz maam Thierno ñeewante na ko ay ndongoom kon jataay baa ngi noonu muy wàcc ak wàccaayu euh, internat sëriñ Dia Bal sëriñ ji loo bëgg a dolli. waaw muy lu loo xam ko bu ndaw bu ñu def rek muy daara ji bi mu nekkee fële ñu ngi doon jàng bu baax alhamdulilah waaye dañu seetlu ne biñ ñëwee fii yàgg na yàggut waaye li fi mokkal alxuraan fii si ñaari at wala ñett yi ñu fi def moo ëpp sax li dali dali dali jot a mokkal fee te ni ko suñu Madiagne waxee léegi yaakaar naa mu ngi ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett maanaam nga xam ne fii defaguñ fi juróom-benni at waaye mboolem liggéey fukki at ya na ko loolu nag sew sew bu ci nekk mooy dañuy wan naa daanaka wéet gi ñuy wéet fii dafay joué wàll ci njàng bi kon nakate bu dee fii lañ nekk rek ci pegg dëkk bi loolu di mën a am buñ demee ba gën dëkk bi ba gën a wéet loola dana gën a yéwén dana gën a baax kon yàlla yàlla mottali naal yi yàlla na yàlla mottali naal loolu lu ci am solo la loo xam ne damaa géndee ko ne nag te wéet gi daal am na solo te nag euh, dafa mel ne bërëbu jàngukaay ak yarukaay da daan wéet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daaru arxam gaa yi ñu ngi doon dajee ci jabalu safaata boobu it ci xaar ju makka la nekkoon daa mel ne nag te bërëbu jàngu daal bokk na ci liy jàppandal wéet gi moo tax loolu yàlla na ko yàlla sott yàlla ko yàlla sottal jërëjëf euh, Serigne Djily ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax nag ñu fas yéene nag wàcc ak wàccaayu internat Serigne Dia Balla Thiané ca Ndanku Bey euh, muy dimanche juróom-ñaari fan ci mois de avril Babacar Diop ñu ngi lay gërëm sa taxawaay ci leeral TV bi nga xam ne wër na àddina bi yëpp ngay liggéey liggéey bu rafet ñaan sa fan dolli sa wér euh, ñu fas yéene nag jox rendez-vous jullit ñëpp soppe alxuraan yëpp ndeyu daar yëpp baayu daara yëpp jullit ñëpp nga xam ne bu ñu demee ba dimanche juróom fan ci mois d' avril bu kenn jubal si ci daara yi benn daara ñëpp dañ mal ndànku oustaz maam Thierno bu xëyee incha allah rek dëgmal na ndànku bu kenn ñu naan gisuma kenn wala xaw ma fu mu nekk nañ bàyyi xel bés bi waajal ko bu kenn ñëw fii naan di ne mat naan gisuma maam Thierno xaw ma fu may jaar maam Thierno bu xëyee dimanche la set incha allah ma nga mal ndànku ak i xaritam ak i soppeem képp ku xëy rek dimanche na nga mal ndànku béy di ñaan yàlla taxawaay ba bu nga xam ne maam Thierno fas yéene ko taxawal jullit ñi yàlla yóbbuñ ci jàmm muy nag bésab jaayante di bés boo xam ne bii ñu ngi koy lancé appel jullit ñëpp képp koo xam ne kii am nga loo war a lebal suñu borom ci sa alal jil la yàlla war sëgale mu néew mu bari bul xeeb bul yéem loo ci yónnee rek maam kenn doon ko defal ci internat Serigne Dia Balla Thiane ba ci ndànk oustaz ma fàttali numéro yi moo di 76 151 08 12. wala 77 438 59 93 83 moom nga gis ci numéro yooyu muy circulé ci télévision Leral TV kon ñu ngi jox rendez-vous ñëpp. ni ki mais Serigne Ndiaga. dafa am tuuti rek lu ñuy rappelé waat. waaw ndax Serigne Thierno dafa am ay soppe. am ñoo xam ne dañoo bokkoon nekk ca Daara Sëriñ Mat Saxir te ñoom ñëpp nag ñoo moom Daara jëlee. ñooñu nag la ñuy jiital ñun suñu wootee ginnaaw Serigne maxtaar Naar mi nga xam ne tey moo toog toogaay Sëriñ Mat Saxir Lo ndax euh, liggéey bi nga xam ne Serigne Thierno mi ngi koy def ci réew mi ump leen ñoom ndax bari na ñu mu bokkaloon ne ci daara ji seeni i nekk fii tey ñenn ñi ngi Europe ñenn ñaa ngi fu ne te dañuy dégg maa ngi ci tudd kenn usmaan Diop léegi bi nga wax dañ ma naa ko dégg ay doom ñi ngi mokkale fii ci daara ji kon ñooñu lu baax li ñuy def ci jàkk yeeg jumaa yi te bala ñu am imaam wala ñu am dara dañuy am dongab alxuraan bu wattu alxuraan mokkal te daara mooy defar imaam bi mooy defar seede village bi ku baax ci réew mi te lislaam tax ngaa baax ci daara nga baaxe waaye kon ki nga xam ne dafay fonde dara ñi mu daan àndal ci jiital muy ñi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ca daari seen mat saxit loolu di fàttaliwaat nag ndànku boo rombee mboroom rek soriwul foofu dara da nga gis tableau bi pour nit ñi fa bëgg a dem buñ jàpp ni ndax buñ tegtalee war ak man nañoo jàpp ni xaw naa jege war waaye ndànk soriwul dara dafa nekk ci bunt bi kon képp koo xam ne gis nga image bi mën nga koo partagé waat képp koo xam ne aussi am nga loo ci bëgg dugal jëru ngay xaar bu bis ba mën nga ko envoyé su ko defee tamit dana dem ci yeneen média yu gën a yaatu ndax liggéeyu yàlla bi ku ci nekk rek li nga am moom ngay wuy see bu ñu wootee di ñaan yàlla su borom def ñu yàgg ci ak jàmm di ñaan la ak Serigne Thierno taxawaay bi yàlla yàgg ci darajee alxuraan kon ñu bàyyi suñu doom mu tëjee ñu ak alxuraanul karim jërëjëf Maysa ñu ngi lay gërëm di sant bu baax a baax di ñaan yàlla bis bi ñu mal ci tedd nga suñu borom barke alxuraan yàlla na yóbbu ci ak jàmm ñu ànd ko ak maam Thierno ànd ko Seydi Maxtaar Naarlo ak soppi alxuraan ak kilifa diini ñu tàmbali ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di leen tàggu fi nag di leen ñaanal jàmm ñu ñaanalante jàmm joxante rendez-vous dimanche le 7 avril ta ndànku bi kon sunu xale bi ñu bàyyi ko rek mu tëj alxuraan يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط يرجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين sadaqallahul aziim